Yeah.

géwël bo xamanteni fi ci Sénégal mën na pousser ben ouf de soulagement jëmale ko ci benn marge bo xamanteni assemblée générale union des magistrats du Sénégal bi amlé won samedi bi ñu génn mom mi di ministre de la justice annoncé na dal ben prison bu bees bo xamanteni dal dina accueillir lu toll ci 2500 places yo xamanteni paréna à 90% mom dix mi di Ousmane Diagne ginnaw bu mu defee allusion wawté na dal que li nga xamanteni moy paquetage bi muy ay superposition yo xamanteni dañ koy def yenn ci ay détenus ci ay cellules yo xamanteni yu pléthorique la fàttaliku na que dignité humaine dafa don ben priorité pour que li di gouvernement bi nous ñëw ci terme politique carcérale bi jëmale ko ci ay nit yoo xamante ni parfois dañ leen di entassé ñu mel ni ay bàyyi ma ginnaaw loolu nag ay doomu aadama lañ ce sont des humains dañu am seen droit il faut que ñu fàttaliku que prison du benn hôtel mais aussi minimum war nañu mën a préserver benn dignité boo xamante ni ay détenu bi mu ngi fa ginnaaw nag lépp loo xamante ni ñu ngi koy jël pour remplir li nga xamante ni mooy benn priorité daal di désengorger li nga xamante ni mooy prison ñi ginnaaw loolu daal insisté na daal moom di ministre des gardes sceaux kii di Ousmane Diagne que bientôt daal dinañu livrer benn prison bu mën am capacité 2500 personnes ñu mëna a wàññi yenn prison yi ba nga xamanteni gaay ñu ñuy dëkke ci biir néeg yi dafa metti trop dem na ba nga xamanteni dañuy bafouer li nga xamanteni moy mooy seen dignité humaine alors que ay doomu aadama lañu malgré xamal ni que prison du hôtel 5 étoiles mais y a le minimum de respect pour que ñi nga xamanteni ni lañ fa téye <laughs>